بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi toll ci suratu nisa tey ñuy jël ñaari aaya aaya 22 ak aaya 23 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa taala lim ñu ciy jàngal mooy ñeenti mbir bi ci njëkk mooy taxrimu manakihi aljahiliya illa ma waafaqa alislaamu minha wa xaasa azwaaju alaba fa zawjatu alabi muharramatun ala alibni walaw lam yadxul biha alabbu wa talaqaha aw maata anha mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey ci ay àtte li leen di wan ne lislaam diine la li leen di wan ne lislaam aw dundin la aw doxalin la wu bàyyeekoo ci yàlla borom jaam ñi jëm ci jaam ñi borom bi bëgg namm sàkku ci ñun ñu dën ñu dunde moom borom bi ni mu bëggee mu ne araam na ci ñun takk ceddo démb jaahil yi niñ doon dundee avant l'islam di ñëw l'islam bi mu ñëwee def ñoo tere ñu dund dund ceddo yooyu dund jaahil yi moo tax dina yéeme tey nga gis ku taxaw naan man samay maam ay ceddo lañu woon wala ñun ay ceddo lañu wala ñun loolu lu garaaw la parce que l'islam dafa ne ginnaaw ba nga tuubee amatoo droit dund ceddo lépp lu jëm ci jikko yi da nga ko war a sànni kon naka leen di di tiitoro loolu naan xam nga ñun ay ceddo la ñu am loolu ku ko wax rek da wax nga musiba mu ne illa ma waafaqa al islaamu minha lu dul lu islaam dëppoo ne lii ceddo yi ñoo ko doon def waaye baax na jël leen ko lu ci lislaam dàq dañ ko war a bàyyi lu ci lislaam nangu dañ ko war a nangu ixwaan yi mu ne wax xaas rawatina nag azwaajul aba jabari bàyyi sabaay fase nga takk sabaay dee nga donn ko loolu moom xam nga ne du yëfu nit moo tax lépp lu ñaaw lu bon islaam dafa ne nañ ko bàyyi ci lu mun doon bu dee lu ñuy naan bu dee lu ñuy lekk bu dee bu dee bu dee bu dee fu ñuy dem bu dee lu ñuy wax lu ñu war a def ci lu bon rek lislaam tere nañu ko benn borom xam-xam nee na lu tax moo leen doon ne lislaam ci yàlla la bàyyee ko nee na lislaam lu mu tere rek ku ci dugg rek ñu ne la cam kan mooy takk sa jabari baay kan mooy doon naat sa baay ci jabaram lal bu doon sa baay doon tëdd nga ciy tëddaat gis nga xoolal nit ñi niñ leen yare mooy lalu mag sax doo ci toog lalu mag doo ci toog en tant que xale ah sa lalu yaay doo ci toog sa lalu papa doo ci toog fii loolu sax lañ ñu yare waxuma la ak nag nga naan da ngay takk sa jabari baay sa baay fase nga naan da nga koy takk wala sa baay dee nga naan da nga koy doon te lislaam tere loolu mu ne fa zawjatul abi jabaru baay muharrama dafa araam ci islaam ci doom alal ibn doom ju ñu mën a doon doom joo mën a doon sa baay bu fasee wala mu bàyyi wala mu faatu la mu bàyyi araam na ci yow bu dee soxna doon tane jabar jooju jotul bokk ak sa papa néeg wala lal mooy sëyuñ donte na sa papa da koo takk fase ko wala sa papa takk ko dee jabar jooju araam na ci yow donte ne duggul ak moom néeg donte ne sëyul ak moom donte ne maadaama sëy jaar na ci diggante soxna soosu ak sa baay pare nga ci yow mu ne moo xam daf ko daf ko takk sëy ak moom wala mu doxul bi ha al abdu papa ji duggul ak moom néeg aw tallaqaha fa amaata wala daf ko fase wala dafa dee bu ci mun a am ci ñett yi yow moom bu yeboo nga xam ne bu fekkoon ne jigéen jooju dong moo des ci àdduna bu yeboo nga xam ne yow labbe ngay doon waaye dootoo sëyati ci àdduna ndax jabar jooju doom jooju ku jigéen kooku dootoo ko takkati loolu mooy lu njëkk lu ñuy jële ci suñu dars mooy jabaru baay araam na kenn du donn sa baay ci jabaram ñaareel mooy bayaanul muharramat min an nasab l'islam daf ñuy leeralal loolu ñu naan askan askan ñi ci araam ci yow ñi nga xam ne mënoo loon a denc te yéen a bokk askan say mbokk lañ ñooñu wa hunna ñooñu ñaata lañ sax ah yow sori nga di keneen ñooñu ñaata lañ ñi araam ci yow ci askan bu kenn xool téere yi si gileen yéen ñëpp bu kenn sëgg ñi araam ci an nasab askan déedéet bu waxuma nga lim par benn dama ne da ngay wax globalement ñaata lañ doy na yow do du arrêté foofu yow huit bismillah yow mi ne huit indil al ummahat yaay araam na ci nit ah al banaat awalan juróom-ñaar lañ juróom-ñaari jigéen araam nañ ci nit sabaa juróom-ñaar lañ juróom-ñaari jigéen araam na ci yow adduna bi wu ci juróom-ñaari jigéen ñooñu desoon bu yóbboo nga dem soli ji laa bew ki ci jëkk mooy sa yaay allahu akbar ñoo wuteeg yahut yahut day donn yaayam ñun ñoo wuteeg rab rab day sëyeeg ndeyam gis ngeen lislaam ni mu sete nit di fanaanoog yaayam xam nga ne loolu musiba la xale sax dañ naan su maseuree bu mu bokkateeg yaayam lal waxuma la ak ay sëram yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xale bu maseuree na ngeen def ñett yi na ngeen ko digal julli su bañee dóor leen ba pare wa farriqu baynahum fil madaji'i na ngeen tàqale jigéen ñi góor ñi même bu ñu bokkee ndey ak baay bu xale bu góor bi amee sept ans waratul bokk xale yu jigéen yi ci kawlal gis ngeen ñun suñu diine mais maa la saf xamuñu li ñu am bu fekkee set bu fekkee laab wallahi lislaam la boo demee ci duus bi ñu ne la jëlal ndox defarul ba set bu fekkee beneen diine lu ñu lay wax da ngay fomp lu ñu raxasa ndox ak saabu ak lu ñu fomp ci këyit bu gën a set benn benn tubaab loolu moo ko tuubloo laabu moo ko tuubloo laabu tubaab bi daa gis jóge jóge Europe ñëw Sénégal gis gars yi kuy dugg ci toilette bi rek da nga yóbbu sa sala mu ne lu ngeen di def nii pourquoi seen toilette bi amul kayit gars yi ne ko ah ñun xamuñu loolu de mu ne yéen yéen a santé yéen seen loxo nu muy demee foofu waaw gars yi ne daal di ree daal di koy bàyyi ci biir paa bi nee na mbir mi metti ma waaye ma denc ko sama xol comme ab gan la ñuy ndékki pot chocolat bi daal di tuuru ci kawam mu ne ma gaawante rek indi musuwaar ag te jox ko ci yu bari mu fomp jox ko jox ko jox ko jox ko ba mu jàpp ne set na ma ne ko fóonal mu fóon mu ne mu ne ko alors mu ne ko non odeur bi des na de mu ne ko labaase comme ça mu ne fan mu ne foofu boo duggee ci toilette bi boo fompoo tamit rek tubaab bi tubaab bi commencé buy dem rek yóbbaale satala mu ne ko rey naata saaw bi gars yi ne ko bëgg na leen ah yéen yéen yéen c'est bon hein gars yi ne ko a ñëw lii mooy l'islam de mu ngo l'islam du morom parce que jógewul ci nit yàlla moo koy tëral yàlla lu mu wax noonu la xoolal xoolal sa yaay l'islam bu doon dafa ñëw nii rek kon du dugg ci détails yi day bàyyi nit ñi rek julli ñeent rakk lim ñibi waaye xoolal ñu ne la sa yaay aram na ci yow nga sëy ak moom kuñ ci teg al axawaat say sœur al banaat do ñaa say doom yu jigéen say doom yu jigéen ñu ne la aram nañ ci yow de di nga ko yemaleeg sa doq kan ku ci tegu al axawaat say sœur moo xam ñu mag la moo xam ñu ndaw ñi nga mag wala ñi la mag ñooñu dootoo seeg ñoom wal ammaat say bajjan wal xaalaat say tante wa banaatul ax sa doomu frère wa banaatul uxt say doomi sœur juróom-ñaari jigéen ñi aram nañ ci yow day gis Sénégal ku takk jarbaatam dam dafa aram wax lañ la wa banaatul uxti kay jeex na say doomu sœur yaay seen nijaay kon dootoo leen denc gis nga juróom-ñaari jigéen ñi dafa araam ci nit koo ci takk rek bu yaboo nga xam ne boo dee da nga dem safara ku takk sëy bi sax bu dee dee dem safara parce que yàlla moo ko tere texte la borom xam-xam yi waxuñu ko de lii ay texte la yàlla mu ne seen yaay araam na ci yéen seeni doom araam nañ ci yéen da ngay dégg léegi Sénégal kuy sëy ak doomu laa ilaha illa ñun yàqu nan inceste am na ñu wax inceste di sëy ak sa doom boo jur ku sëy ak doomam bu jàppee keneen nu mu koy def ku bëgg sëy ba xiif jëm rom dem ci doomam bu jigéen kooku bu gisee beneen doom nu mu koy def da koy lekk wal axawaat ak ay sœur ku sëy ak say sœur yow bokkal ndey ak baay wala nga bokk ak ñoom baay nga sëy ak ñoom wal amaat sa bàjjan xaalaat tant wa banaatul ax say doomi sœur frère wa bint ak uxt ak lan say doomi rakk yi jigéen wala say doomi mag yi jigéen mbokk yi aaya yi ñuy jàng tey daf ñuy jàngal ne juróom ñaari jigéen ñi araam nañ ci yow beneen mooy bayaanul muharramat min arrida am na ñeneen ñu araam ñoo xam ne limuñu leen fi te bu dee jigéen araam nañ ci yow ñan la mooy ñi nga nàmpandool képp ko bokkal ween même bu ngeen bokkul yaay bokk ngeen ween bu ngeen nàmp ndaw soosu araam na ci yow waaw waaw imam malik nee na ida nakaha rajulu lmara fala yahilu lahu an yatazawaja ummuha imam malik nee na boo sëyeg jigéen yaayam araam na la dootoo takk yaay ji boo sëyeg jigéen doom ji araam na la dootoo takk doom ji yaay ji bu fekkee nàmp la nag boroom xam-xam yi nee nañ nàmp boo ci bu xasee guux soow mi wan na rek terminé ñenn ñi sax dañ naan nampal ay fan ak ay weer ak ay waaye ñenn ñi li ñu wax mooy jox nga ko sa ween namp na meew mi dugg na jeex na xale boobu ñi ndaw si jur ñëpp aram nañ ci moom te loolu tey nu mu dangereux ci sunu biir kër yi dañuy nampalante ay doom ba pare xale yi di sëy màkk yi ñoo bokk ndey ak baay ñu ñaar ñam ñuy góor ñu takk ay soxna sama soxna dem marché bàyyi fi doomam mu jooy doomu ye- jabar kii nàmpal ko man doom bu góor laa am kii doom bu jigéen ñu màgg ñu may leen ñoom ñaar araam nañu sëy est-ce que bokk nañu leen te ñun dañ koy def dëkk bi ñu bari kër yi dañuy nàmpalante da ngay gis sax yaay ji yaay ji ci boppam maam ji day jàpp xale yi ci kër gi yëpp di leen nàmpal te xale yi di seet encore bu ñu màggee loolu dafa xaram ay nit bu ñu bokkoo ween rek pare na islam daf ko araamal dootuñu sëy seen biir loolu bu yeboo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax lu ñu lu ñu lu ñu gàtt gàtt xel suñu kër yi nañ ko contrôler ay nit bu ñu bokkee ween dootuñu nàmp dootuñu dootuñu sëy dafa bokk ci li islaam araamal mu ne farradi yuhram alayhi ummuhu almurdiu lahu nekkul rek ne yow mi nàmpal nit nit kooku ñi mu bokkal ween bi araam nañ ci moom waaye yow mi ko nàmpal yow mi ko nàmpal araam nga ci moom mënatulaa denc yow mi ko nàmpal araam nga ci moom mënatulaa denc mënatulaa denc ndeysaan mbokk yi ay doomu kooku araam nañ ci yow allahu akbar ah doomi ndaw soosu nàmpal la ay doomam araam nañ ci yow waxuma la ndaw si mu araam ci yow waaye ay doomam sax araam nañ ci yow wa axawaatuha wa ammaatuhu wa xaalaatuhu wa banaatu axihi wa banaatu uxti ñëpp araam nañ ci yow gis ngeen nu mu grave ki nàmpal nit nit kooku araam na ci nit ki kon ki mu nàmpal mu denc ko waaye doomi kooku araam nañ ci moom sëri kooku araam nañ ci moom bàjjani kooku araam nañ ci moom tàntaay kooku araam na ci moom wa banaatu axiihi doomi frère kooku araam na ci moom wa banaatu uxtihi doomu sëru kooku nàmpal la araam nañ ci yow kon ki nga nàmpal ban daraja lañ ko jox moom yor na darajay yaay moom mi nga nàmpal jël na ci yow darajay doom mooy comme ki ñu joxoon sànq gis ngeen léegi nag fekkee ne lii la lislaam wax ñun léegi lan mooy suñu taxawaay ndiki kon ngeen islam du julli leen rek woor leen rek joxe leen azaka eh, nangam nangam dafa ne islam te du diine barkeelu la déedéet islam aw dundin la li ngeen di gis ni tey li tubaab yi bañ l'islam gouverner xam nañ wallahi xam nañ ne nit ñi bu ñu mosee l'islam un mois jeex na parce que l'islam rek moo mën a sauver nit ñi tey ci àdduna bi àdduna bi dafa lëndëm dafa yàqu dara mais loi bu nekk gis nañ ko est-ce que nit ñi jum nañ xoolal nit ñoo xam ne jarul police islam xamul police xam islam xamul kaso yonent bi dund na ba génn àdduna Aboubacar Omar Ousmane Ali sahabatul kiram xamuñu kaso l'islam ay loi am yëpp amul kaso wax leen ma ci benn bu am kaso parce que kaso xool leen kaso kaso kaso Sénégal lu mu yokk Sénégal ci dépasse benn dañ leen di utal fu ngeen dëkk wala tabax ko dañoo fay ñooñu terrain bi ñu occupé rek mun nañ ko bay benn ñu ko tabax dañ leen di fay ba pare ñu def def ci lépp courant ndox ngeen di lekk di naan di taal courant du di- du ngeen fay di naan du ngeen fay ndox ngeen def lépp ñu utal leen sax fu ngeen di entraîner ba pare yore leen budget ngeen di ndékki di añ di reer loolu loolu utal leen ay nit ñu leen di garder ñaata kaso moo am Sénégal ñaata nit ñoo ci nekk loolu ñaata milliards la ñoo ñëpp bu fekkoon nañ leen yóbbu ci àll bi ci désert bi bay loolee wallahi kon kaso yi du yomb nii quoi mais dafa yomb moo tax Sénégal gi ku dem ne booy maa ngi ñëwaa rak tak dem dëkk sama place fu ma fekk dama lay kill gis ngeen kuy génn kaso da ngay dénkaane sa place ma daan nit ñi dem kaso ci ñoom du dara léegi moo tax da ngay wax ak nit sax mu dem jëli jaasi wala xaaral ma ma ñëw nga dégg gars yi naan dawal bu la fekkee da lay rey dawal ah loolu moo am Sénégal léegi parce que dafa yomb l'islam nag loolu amu ci l'islam da ngaa def dara loolu nga def lan lay def mu jeex da ngaa rey ñu rey la da ngaa sàcc ñu dagg sa loxo da ngaa jam ñu jam la amu fi nekk di la yóbbu ngay sonal nit ñi ah déedéet agresseur nga ñu daal lay jàpp génne la dëkk bi waar la boo nangoo tuub nga tuub ñu delloo si la ci société bi nangoo ñu jàpp sa benn loxo dagg ak sa benn tànk aca génne la dëkk bi di nga jub mu jàppoon ñaari nit ci stade bi ne leen ay bal tul ñëpp di xool ñu ne ku rey ni nii lañ koy def ñëpp danañ jub ah xolo xolo waa ji ñu rey léegi-léegi ci stade bi léegi léegi ah même pas dix minutes kuy jaay-jaayam yoonam nekku ci demul damaanul dikkul vendredi jaay na ma socc bi ma jullee juma ba pare maa jiite léegi lañ ko rey fii fi mu nekk nii perte na Mali Faro njabootam perte nañ fu ñu jëm ñu fu ñu jëm ngeen def ne ñu ngi ci jàmm est-ce que yi loi yi du dara du tus ñan ñoo ko def ay nit su leen arrangé ñu ñu ne bismillah bu leen arrangé ñu dindi ko léegi changé ko indi leneen lu leen arrangé ku ñu bëgg a tëj ñu tëj la ku ñu bëgg a tijji ñu tijji la baaxul moo tax foog ñu xam ñun li ñu islaam indil lislaam a ngi nii aw doxalin aw dundin wu leer naññ wu set wicc nit ki day dund set wicc kenn du am takk takk ak tilim tilim bu ñu teg sa kaw parce que l'islam moo la tëralal doxalin wi mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey ginnaaw araam ndey ak la ca bokk ginnaaw araam ci askan ak la ca bokk ginnaaw araam ci nàmp ak la ca bokk bokk na ci beneen araam bi mooy lan almusaahara mooy goro goro wanteeg nit mu may la doomam pare nga ci moom da mu ne ñoom tamit juróom-ñaar lañ almusaahara juróom-ñaar lañ ñu islaam arabal ñan ak ñan la ku ci njëkk par kenn Hmm. ku ci njëkk zawjatul abi jabari baay jabari baay pare nga ci dootoo ko takkati ku ci tegu ah zawjatul abdi bana biha jabaru baay bu mu dugal néeg aw lam yab ni wala duggul ak moom néeg pare nga ci beneen bi imraatu hu bana bi ibniha ah imraatuhu bana bi ibnatiha bépp jigéen boo denc ba dugg ak moom néeg ay doomam pare nga ci dootoo leen denc mën ngaa gis takk yaay sëy ak moom ba pare daan ne non man léegi maa ngi ci doom ji loolu mënul nekk de bu ngeen xasee bokk néeg pare nga ci doom ji bu dee doom ji nga takk ba dugg ak moom néeg pare nga ci yaay ji dugg ak moom néeg lu ma ci namm kooku mooy jigéen ji nga takk doom ji nga pare ci mooy ban doom mooy doomu jiit la mun nañ daal ci kër gi jàng li muy sëy si wala muy indi fi xale boo xamante ne màgg na ndax doom jooju après da nga koy takk loolu dafa araam ci ñun ma leen di wan ne lii doxalinu yàlla la waaw Sénégal na ngay gis sëriñ bu boole ñaari jabar yu bokk ndey ak baay ñu ne ah ñu ne moom moo ko ñeme de moo ko sañ da nga koy dégg fii ñuy tagg sëriñ yi ñu ne am na ci kenn koo xam ne am na ñaari ñu bokk ndey ak baay dafa takk kenn ki ñu muur ko muy sëy si mag gi yóbbu ko mu ne nii gis mag gi mu ne kii nag ñu ne ko mu ne boole naa ko ci ñu ne est-ce que waaye est-ce que est-ce que est-ce que ah waaye Sénégal moo neex waaye kii nag am na jëkkër ñu ne déet mu ne boole naa ko ci boole naa ko boole naa ko ci boole naa ko ci boole naa ko ci tàlleen loxoy ma ñaanal ngeen dem tëddi inna lillahi wa inna au lieu ñu ne ko dafa aram comme bakkanam la topp waaye déedéet ñoom tamit ndeysaan ndeysaan ñoom it ah ak a metti wóo të të të të ak a metti Sénégal li nga fi gis da ngay gis ku yor juróom fukki jabar am na ci ñoo xam ne sax jabar yi ñu yor xamatuñ ko léeg-léeg nit benn kilifa dee am ko dem dëj ba ñëwaat daal da yii néeg bi ma gis ñu koy tëñ ji bëri nañ de ñun jëpp nañ 30 së të të të waa jigéen ñooñu moom jigéen ñooñu moom ñoom ñoom ñoom it ñoom it dama lay takk waaw man ñaata yàlla ma ne noo wax dëgg yàlla xaw ma nag ñaata nga ndax rek fi ma toll nii ba ma gëjee xam daal boobu fee lañ woon saa yi moom xamatuma ñaata lañ nga ne ko waa nangu naa cee bokk gën gën laa bon koppal ñeenti jabar rek yéeféer nga nekkatoo jullit koppal ñeent nekkatoo jullit yeneen doom yi juddu foofu yëpp ay doomi njaaloo lañ parce que sëy amu foofu moo tax kuy ciy takk sëy war ngaa seet ki ngay may ñaata soxna la am day laajte de day laaj laaj leen ku jigéen kii mbaa nekkul ci bu mu jàmbur ku jigéen kii mbaa ku jigéen kii mbaa ku jigéen kii mbaa ba mu jeex ngeen ñëw ci ku góor ki hmm? mbaa mbaa yi mbaa ëmbul damay junj rek après yéen a yeggali na ku góor ki tamit mbaa mbaa mbaa bañ ne la yooyu yëpp amul nga doog a takk sëy bi kaay kaay takk rek nga takk gis ngeen pa am na fan yi benn pa bu ñu jëli benn imam bu ñu jëli ne ko kaay yaa takk sëy bi te kilifa ñi ne ñooy papaay ku jigéen ki juruñu ko xam nga imam boobu am na problème wet dina ba sonn waaye li la ci dugal génnewu la ci moo tax yooyu da nga koy laaj comme dëkk bi dafa soppeeku da ngay soppeeku Omar loolu la def loolu Omar gars yi dañ naan Omar lu bëri moo ko dugal ci diine si ay sax loolu la ñuy wax lii bokk ci Omar ko fi indi lii bokk ci Omar ko ci dugal waaw. yeneen bi saa sallam lan la wax aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa rachidin almahdiyin addu alayha bil nawajiz kon Omar lu mu indi sunna la. Omar bu mu gisee gars yi dëng di naan sàngara tax bàyyi Omar ne nañ yokk yar yar yee safut nañ ko yokk 80 coups añeeku na de. waaw ak loolu mooy mooy nit ñi saa yu ñu soppeekoo bëgg a jëm ci mbon da ngay indi ay luwaa yu leen yu leen kar waaye nga bàyyi noonu rek nit ñi féttéeru di def lu leen neex ku mu neex takk 14 jabar soo waxee ñu ne moo ko sañ moo ko ñeme li mu xam xamoo ko kii baayam nangam la loolu moom amul ci benn islaam jànguñu ko fenn bokk yi bokk na ci li araam mooy wamraatul wala takk sa sa jabari doom takk sa jabari doom ndeysaan dañ may nettali benn tribunal boo xam ne ndaw si daa ëmb rek ñibbi seen kër fekk jëkkëram dafa tukki kenn waxul doom ji sa jabar dem na ñu bàyyi noonu ba jaam doom ji ñibbisi rek gisul jabaram mu ne waa pap an sama jabar mu ne gisuma ko yaay an sama jabar mu ne ah ko kay yàgg naa dem mu ne lu tax waxu leen ma ko mu ne dañ la doon bañ a xam nga ci àll nga nekk bugguñu laa boobu du jamono léegi nag ay téléphone amul bugguñu la woon sonal ndax yaa ngi ci àll di ut ñu ne la sa jabar dem na doo saxel dootul dal mu mu xëy rek dem kër jabar ji ne ko yow la yóbbu jabar ji mu ne patt bañ a wax mu dem ci papaay jabar ji waaye lu tax ngeen jël sama jabar ñoo ñu ne patt mu dem police ñu jëli ñaari famille yi ñu laaj ndaw si mu bañ mu ne du wax ñu laaj papaay ku jigéen ki mu ne ah laaj leen ku jigéen ki waa ji ne la li comme bëggoo sëy da nga may fay sama xaalis bi ma la joxoon wala nga wax lan la ndaw si bañ rek ñu jëm tribunal juge bi daal di koy woo ne ko waa yow lan la mu ne papa moom ma ëmbal li ngeen bëggoon ma wax wax naa ko nag sa papa moom ma ëmbal moo tax ma ñibbi gis na rek waa ji daal di daanu ci ci ci biir saal bi ndeysaan commencé di yuux commencé di yuux nga loolu ba loolu ban musiba moo ko gën a garaaw ëmbal sa jabaru doom te loolu léegi mu am suñu kër yi ah ëmbal sa jabaru frère ëmbal sa jabaru sœur ëmbal xaw ma lu ma xawul lu nekk la musiba bu nekk mooy am léegi ci Sénégal parce que nit ñi dañoo bàyyi diine sori ko ba pare nag di jéem avance avancement di mel ne di tubaab tubaab lu nga gis xale jigéen yoo xam ne dañuy paccal seen kër yi di dangal génne seen awra yi tamit seen papa taxaw di xool awra awra kese la li amul papa amul yaay amul doom waaw jeex na seytaan dafa bëri doole inna seytaan tajri ala ibnu adam majra dami yonent bi bi mu ànd ak safiya mu gis ñaari saxaaba di gestu naan nii tëgg guddi la naan nii ñu ne eh kaay leen ñu daal di ñëw ñu ne kii kan la safiya waxal yaay kan mu ne man la safiya ñu ne yonent mu ne waaw yonent yonent bi dinañ xalaat ci yow loolu mu ne déedéet seytaane day daw ci seen di ci yaramu doomu aadama ni deret bi di dawee su ma leen bàyyee léegi ngeen dam yi ngeen ni sa waay dem gis nañ ko fekk demeewul noonu mu nga léegi tamit nag bu ñu bàyyee suñu kër yi ku nekk bàyyi sa doom di sol lu ko neex buy sangu sax yenn saa yi mu def yaramu neen ñëw traxlaayoo benn sarbet entre dënn beeg oom yi xale yi góor yi bu ñu xëyee sol ay keroot di génn seen dënn yi naan ni di génn ay pooj loolu moo am ci kër yi di gis ponkal moo xam ne dafa yëndoo entraîné ba kii fajar mu sambaay teg sarbet jëm ci dus bi yéen a ngi fàttaliku màng bi muy bëri am na benn maire dafa toog di xool télé bi di xool ba càgg mu ne màng mi poojam yi kum ci kepp gis nga xoolal kooku xelam fu mu dem parce que dafa toog di xool ay awra kon loolu mooy problème bul yaakaar ne yow ni nga mel rek xooloo déedéet mais même ci nuyoo da ngay gis ku nuyu fi benn xale bu ci mais mais booy bi loxo yi garaaw na de lu sax nga xam ne loxo yi dafa garaaw mais danga ko laal soo ko laal woon doo ko xam léegi nag loolu ngay dafa garaaw après yow da nga koy bàyyee noonu da nga ciy topp mu jaral la lu ne moo tax islaam lu mu wax dëgg la bul jaaru de benn paa dafa gis ay xale yu góor ak yu jigéen dajaloo ci benn basang ci benn guddi ñu ne guddi yonent bi la dañuy màggal xale yëpp jaxasoo somwaay ku nekk njaganaayoo kenn góor gi di xool ba ci àgg mu ne ah këriñ du jaaru de ñu ne paa loo wax ni mu ne ma ne këriñ du jaaru gars yi xamuñu lu paa bi wax ay ñoo ñoo ñëpp ba ñu màggee xam nañu paa bi lim leen waxoon lan la te mu ngeen ko waxoon benn dëkk de ci yi ñuy boole ci dëkk yu sell ya ci yi ñuy boole ci Sénégal ci dëkk yi sell yi la gars yi demoon ne dañuy màggal guddi yonent bi lal seeni kii indi seeni mat la teg ci xale jigéen yi ñëw tëdd xale góor yi ñëw tëdd paa bi xool ba càgg daan ne këriñ du jaaru de nit ñi xamuñu woon boobu lu muy wax gis ngeen kon nañ leen delluwaat ci suñu diine xam ne yàlla lim ñu wax mooy dëgg lu ñu nand nand nand nand nand lu nu muus muus muus muus yàllaa nu gën a muus nag yàllaa ñu gën a xam mbir yi moo tax mu tere ñu ko kon kenn du takk sa jabari doom mbokk yi wa kazalika ibnuhu min arrido naka noonu doom joo xam ne da ngeen a bokk nàmp wa uxtu imra imraatuhu ak sa sëru jabar sa sëru soxna sa soxna jigéen jum bokkal baay wala ndey wala ndey ak baay pare nga ci foofu lan deng moo tax nga takkaat ndaw soosu mooy lan sëram dee bëgg nga ko ñu may la ko seeg moom mu ngoog am na borom xam-xam yu ne bu fekkee da nga ko fase wala mu dee ñaar yooyu mooy mun a tax nga seyaat ak sëram wal muhsanaatu min an nisa jigéen ñu am jëkkër aussi kenn du ko takk li am Sénégal léegi nii takk jabari jàmbur jigéen ñi dañ am Sénégal jëkkër dem France am jëkkër dem États-Unis am jëkkër waaw weer wu nekk ñu ne la damay dem damay dem mission ndeke dañoo am jëkkër fële am jëkkër fii dégg ngeen ki ñu doon ci wax ci rajo bi ki jëkkëram toogoon France ba sonn gisu ko rek ñëw di ko wër si fii ñëw fekk ko muy sëy mu ne ah mu ne kii di sama jabar la papa ji de borom kër gi ne lan ah sama jabar la de kii de maa ko takkoon bu génne photo yi fu ñu jëm ndax alali àdduna boo demee nag ñëwaat ndeysaan indaale benn 4-4 ñu naan seet tet tet tet tet seet tet tet tet fekk xamuñu 4-4 fu mu 4-4 nan la ñu yàlla yërëm mbokk yi bu ñu boolee li yëpp tënk ko moom mooy li nu diine sant mooy li nu diine araamal mooy jigéen ñi nga xam ne araam na ci ñun kon ñetti xaaji jigéen lañ ñu njëkk ñi ñooy ñan dama leen di laaj ñu njëkk ñi mooy ñan groupe bu njëkk bi mooy ñi nga bokkal deret nasab ñeneen ñi ñi nga nàmpandool ñeneen ñi waaye say goro ak ñu jëm ci ñoom ñëpp araam nañ ci yow loolu bàyyi leen ci xel dal na yàlla sàmm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكهوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بقي أي واتشنا di leeral atte sharia ci jigéen ju ñu fase ci ndono ci sëy ak dund bu ñu war a dund ak sunu mbokk yu jigéen yi mu ne ci ñaari aaya yi sunu kanam borom bi araamal na ci jigéen ñoo xam ne ci askan ngeen bokk wala ci nàmp wala ci gorowante almusahara waaye mu ne fa tabda'u bi tahrimi imraatul abi aaye yi tàmbalee nañ ci jabari bàyyi allahu akbar mu ne wala tankihu ngalawaay bu leen denc bu leen denc bu leen sëy maa nakaha ak loo xam ne dencoon na ko abaaukum seeni bàyyi bu leen denc jigéen joo xam ne fanaan na ci seen ginnaaw bàyyi la tuzawiju imraatul abbi awil jaddi bu leen takk seen jabari maam bu leen takk seen jabari baay ñaar ñi jigéen ñooñu araam na ci yéen na ngeen xam loolu parce que seen boroom moom moo ko tere mu ne wala tankihu bu leen denc maa naka loo xam ne dencoon na ko aba ukum seeni baay minan nisaa ci ay jigéen illa lu dul maa qad salafa ca la weesu la paase la paase ci ban jamono la woon ah jamono ceddo
ah pourtant mun na nekk ba ñooñu jamono ceddo de illa ma qad salaf ah cale leen jiitu woon balaa aaya di wàcc xam ngeen ne sëy ñaar ñu bokk ndey ak baay sëy daga noonu ah ci diine aadama daga noonu aadama da daan def boo amee doom bu jigéen ak doom bu góor inversé inversé nii boo amee ñaari seex nii yoon bi mu jël ñaari seex yi tas leen kii jël jigéenu kii kii jël jigéenu kii loolu moo indi woon problème mu Habil ak Qabil moo tax yàlla ne illa ma qad salafa lu dul la passé woon bu leen ko defati mu ne innahu loolu day kaana nekk na faahishatan ñaawtiif allahu akbar faahish ay zawju nisa ah al aba fahish sadid al qub nee na mbon gu dë- gon la sax takk sa jabari baay sëñ bi loolu loolu koo def fii Sénégal kenn dootu la dootoo julli benn jàkk dootoo dem benn marché moom koy da ngay daw rek génn àdduna bi voilà lislaam moo ko ñaawal moo tax mu ñaaw lu lislaam ñaawal rek lu ñaaw la lu mu rafetal rafet na yàlla nee na bu leen ko def ndax ñaaw téef bu bon la ba pare wa maqatan meeru yàlla la tabaraka wa taala mu ne wa saa sabila yoon wu bon la yoon wu ñaaw la su fekkee dagan na ci diine yahudi yi takk sa jabari baay ñun moom daganul suñ diine sa baay lu mu xool waxuma sax sa papa dem di di labat fenn labat fenn labat soxna nga ñëw ñu ne la kii de sa papa koy labat koofu loo ci wax da ngay naan waaye naa ko coog paa bi naa ko dóor mbagg nga takk ndaw si indi ci biir kër gi ah non sa papa di ko xool loolu xel xalaatu ko mbokk yi bàyyi kay lu mu xas a wax waaw la bàyyi dem feneen uti feneen ci àll ba sa rakk papa papa la di ñu gisatul sa papa ku fi sës soo xoolee mbokk gi lu koy yàq rek nit ñi nañ ko moytandiku lépp lu yàq mbokk gi yàlla mu ne hurrimat araam na aleykum ci yéen ummahaatukum seeni ndey seeni yaay araam na ci yéen kenn du takk yaayam ñaaw na trop bon na wa banaatukum ak seeni doom yu jigéen yu ngeen jur araam na ci yéen wa axawaatukum ak seeni sœur moo xam ñoo leen mag moo xam yéen yéena leen mag ñooñu araam na ñoom it wa amaatukum ak seeni bàjjan araam na ci yéen kenn du teg takk bàjjanam sa bàjjan lu mu bokk ak yow par kenn ku bëgg a tontu nekk ci loxo non bu lu waxu moon kenn wax de bàjjan mooy bàjjan mooy rakku papa wala magu papa kooku mooy bàjjan bu dee ci côté bi kenn dootu ko wax bàjjan lu ñu koy wax tanta ca côté ndey suñ ne bàjjan rek baay la bokkal moo xam rakk baay la wala magu baay bàjjan kon kooku pare nga ci waaw toog ba kii rek ñoo naan waa bàjjan temps yi ni ma la gisee ah dëgër nga fiddi bàjjan sa bàjjan ne la ah la wax yow yu xam nga lu mbokk ak sa baay nga naan non passé nañ monde boobu ah actuellement nous sommes au vingt-et-unième siècle am loolu amul suñu diine de suñu diine li yàlla araamaloon fii ba ba ñuy génn àdduna mooy li araam sunu diine li yàlla daganaloon fii ba ba ñuy génn àdduna mooy li dagan du soppeeku de waaw bu leen yaakaar ne ay loi la yoo xam ne dañuy toog rek di ko changé dugg ci ay néeg yor ay big ah di changé aaya yàlla yi moo ko ci àdduna yàlla nee na seeni yaay araam na ci yéen seeni doom yu jigéen araam na ci yéen seeni rak wala seeni mag yu jigéen araam na ci yéen waaye seeni bàjjan araam na ci yéen wa xaalaatukum ak seeni tanta tanta kan la bokkal sa yaay benn mu nekk magam wala mu nekk rakkam araam na ci yow kenn du takk sa tante takk sa rakk yaay hmm. xanaa loolu ba léegi ci diine yi séeréer rek la des wala taawle wa banaatul ax ak takk sa banaatul ax sa doomu frère sa jarbaat kenn du ko def ndax loolu dafa xaram sa doom la kon mënu leen sëy waaw kenn du takk sa doom sa doom jooju moom xam ne yaa ko jur wala wala sa mag moo ko jur wala sa rakk moo ko jur dootoo ko denc parce que sa doom la ku ci tegu wa banaatul uxti sa doomu mag bu jigéen wala sa doomu rakk bu jigéen ñooñu tamit yamala nga leen ak sa doq terminé doo leen denc moo xam àdduna dafa neex moo xam dafa métti dafa yàgg dafa sori ñooñu doo leen denc parce que dañoo aram ci yow ku ci tegu wa ummahatukum allati arda'nakum ak yaay yi nga xam ne ñoo leen nampal bépp jigéen boo mos weenam namp ci ndaw soosu dootoo ko takk aram na ci yow wa axawatukum min arridaa ak jigéen ñi nga xam ne yéen ak ñoom yéen a bokk ween wu ngeen namp nekk nañ say mag yu jigéen wala ñu nekk say rakk yu jigéen léegi yow seen càmmiñ nga munoo too leen denc parce que yéen a bokk benn ween bu ngeen namp Aïcha xam ngeen ne am na ku mu nampaloon du ngeen jàng hadis ñu ne an abdullah an abdallahi yenn saa yi hadis bi ne an abdallahi lan an ummi abdallah yow barki dem indi loo ma benn hadis bu mel noonu waaw googu da koo nàmpal Aïcha amul doom xam ngeen de waaye dafa nàmpal abdallah boobu soo nàmpalee nit pare nga ci pare na ci say doom pare na ci yow pare say doom parce que léegi yaayam nga moom yaayam nga yow léegi ci moom doom la mu ngoog sunu borom nee na wa ummahatu nisaikum ak seeni goro kan mooy takk gorom seeg doom ji ba mu ne yàlla rek nga ni non soxna si fase naa la léegi sa yaay rek comme sa papa dee na moom naa bàyyi ma dem jëli meer yaa naa ku ko wax ay cours dina la dina di nga sonn ci ay cours kenn du takk goroom allahu akbar wa da yàlla nee na subhanahu wa taala wa ummahaatu nisaikum ak seeni yaay soxna wa rabaibukum allati fi xujurikum ak seeni doomu jiitle rabaib mooy doomu jiitle doomu jiitle boo xam ne yee mu ngi ci sa biir kër yaa ko yar kenn dootoo ko takk pare nga ci min nisaikum yoo xam ne seen soxna yee ko jur pare nga ci moom dootoo ko denc mu ne jigéen ñi nga xam ne allaati daxaltum bihinna dugg ngeen ak ñoom néeg fii benn bi rek moo dagan mooy ñëw nga ci kër gi yaa ngi labat yaay ji nga déggoon nga ñëw intéressé wu ci yaay ji ñu jékki-jékki ndaw si ñëw teg añ nga ni yaay ji kii kan la mu ne la kii de sama doom la nga wëlbateeku waaw dagan na de lu tax takk goo di duggagoo néeg di waaye boo xasee takk dugg néeg araam na ci yow waaye même gis ngeen foofu diine dagal na ko de waaye aada aada dàq na ko ay boo ko defee fii ñoo ne maire bi yow laa seet si trois jours nga ne ko léegi nañ ko bàyyi ñu remplacer ko sa doom danaan la jógal ca xaj yàq say daal yow bandi nga loolu lay wax rek mu ngoog ñen lañ yàlla jubal yàlla nee na fa in lam takunu daxaltum bihinna su ngeen duggul ak jigéen ñooñu néeg wala junaha aleykum amuleen bàkkaar ci ngeen takk doom yi gis nga alxuraan moo ko wax kon yaay ji boo duggul ak moom néeg wala doom ji duggoo ak moom néeg ku nekk ci ñoom ñaar dagan na la moo tax diine rek mooy dëgg mën nga kaa def ci diine kenn du la mere waaw kenn du la mere parce que ci diine la ndaw si xam na diine doom ji xam na diine yow xam nga diine mbokk ji xam nañ diine la problème du fa am waaye ñu amul diine boo ko fa defee maire bi danaa la xaaral ma ñëw mu ñëw ci stade bi waxalay góor yi fu ñu la jëmee police dañ la dóor dóor yu métti te pourtant ci dëgg nga nekk de waaye nag nit ñi xamuñu nit ñi xamuñu diine loolu tax am na yenn diine yoo xam ne yonent bi nee na yenn masala yi ku ko wax fenn ñu weddi ko yow yaa ko def parce que yow yaa ko yóbbu ci ñu ko xamul mu nga mu ne falaa junaaha amul bàkkaar aleykum ci yéen wa halailu abnaikum loolu mooy lan ah ñi seen doom yi jot a takk pare nga ci kenn dootul takk ñooñu mooy jabari doom sa doom bu xasee am soxna soxna soosu pare nga ci yow tamit nag dama nga wuti feneen nag seexlul tuuti mu ne alladina min aslaabikum doom yoo nga xam ne ci seeni géño lañ jóge yaa ko jur kooku tamit araam na beneen bi araam mooy wa an tajmaw ngeen boole bayna ux baynal uxtayni diggante ñaari sœur illa ma qad salafa illa ma qad salafa bi fu lu muy joxoñ li weesu lu muy joxoñ non lan lay joxoñ aadama ak awa lañ doon def seeni doom aadama ak awa duñu ay seex de dégg ngeen ñu bëri boo ne boo amee doom bu góor ak doom bu jigéen ñu ne lan ah tuddee ko aadama ak awa aadama ak awa duñu ay seex Ousseynou ak Assane duñu ay seex aadama ak awa aadama moom ak aadama junni at di kenn daa xam lu mu ko magee aadama yàlla bind na ko biir aljanna yàlla toog ba mu neex ko daal di xar faaram génne ci xawa kon duñu ay seex mu ngoog Ousseynou moom mooy magu Assane mooy magu Ousseynou aussi dañ leen a def kenn ci ñaari groupe yooyu duñu ay seex beneen bi mooy nekkul ne saa yoo amee ay doom rek bu góor bu jigéen rek Adama ak Awa la nekkul ne saa yoo amee ñaari góor rek Ousseynou ak Assane su la neexee nga am ñaari góor nga tuddee kenn ki Mouhamad kenn ki nga tuddee ko Aboubacar su la neexee nga am ñaari jigéen nga tuddee leen Khadija ak Nangam wala ku la neex. ok kon nañu xam ne diine daal lu yàlla wàccee ci ay texte la waaye du xalaatu doomu aadama yi du nit borom bi nee na wa an tajma'u ngeen boole bàyyi na uxtay ni ñaari jigéen yu bokk ndey ak bàyyi loolu araam na illaa lu dul maa qad salafa la passé woon inna allaha yàlla kaana mustadeñ gafuran di jéggale rahiman di yërëme moom allahu subhanahu wa taala mbokk yi aaya biñ doon jàng léegi-léegi wala tankihu ma nakaha abaukum dafa am sababu nuzul borom xam-xam yi nee nañ ndeysaan benn waay bu tudd aba qays aba qays ci sahaaba yu baax yi la bokkoon min saalihil ansaar ci waa ansaar ñu baax ñi la bokkoon moom aba qays bu mu faatoo fa xataba ibnuhu qaysu imraatu abihi doomam bu góor daal di ñëw di labat jabar jabar ji baay ji bàyyi woon jigéen ji doom ji bàyyi woon baay ji jabar doom ji ku jigéen ki mu bàyyi woon doom ji ñëw di ko labat aaya bi daal di wàcc ndaw si ne ko man de wax dëgg yàlla sa jabari bàyyi laa waaye nag demal nga laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nga bëgg a def lu ci yàlla wax bi mu ñëwee rek aaya bi daal di wàcc yàlla mu ne wala tankihu ma nakaha abaukum min an nisa bu leen denc jigéen ñoo xam ne seeni bàyyi ñoo ko dencoon bu leen ko def mukk mu ne araam na ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam aljamu bayna al mara wa ammatiha boole diggante jigéen ak bàjjanam loolu araam na wal maratu wa xaalataha boole diggante jigéen ak tantaam loolu araam na waaw kenn du wujjeeg sa tante kenn du wujjeeg sa bàjjan loolu dafa araam ci islaam mbokk yi ci nàmpal buñ ñëwee malik nee na rahimahullah la farq bayna al qalil rida wa kasir ida wasala laban ila al ama wala wamda wahida nee na araam na gis ngeen mboolem boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ne sooy nàmpal nit benn toq bu demee rek terminé kooku léegi sa doom la yow yaayam nga li nga denc yëpp li nga jur ci ay doom yëpp aram na ci moom yow tamit sa mbokk yi sa sœur yi nangam nangam yi ñëpp aram nañ ci ku góor kooku Malik rek moo génn ci masala boobu ndax moom dafa joxe ay nombre yoo xamante ne wala waaye mboolem borom xam-xam yi dañoo dëppoo ne ku nàmpal nit soow mi génn ci sa ween daal di dugg ci biiram jeex na araam na kon doomu ndey yi mbokk jullit yi lii moo doon sunu darsu tey su amee ay njuumte ñu ngi koy jéggalu sunu borom asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee laaj tafaddal
jazakallahu xeyran amin